Baba Show l'actualité en contenu actuel de nañu fas yéene waxtaan ak ki xam mooy ngay gars yi Lamine Lamine Laftiette Camara but de l'année booy bi daal dafa mel ni loolu daal di dugal wax également ci kii di Boulaye Boulaye Dia de retour euh, également ak aussi ki nga xam donc Ismaël Jacobs ak Crépin Diatta Crépigno ki nga xam ne mooy jëm ci ndorteelu ñoom tamit liggéey bi ñu daal di nekk pendant ce temps aussi ñi nga xam ne donc waa Aston Villa daal gars yi tey yenn West Ham 4 buts à Aston Villa gars yi temps yi moom but yu métti la ñu yor ñoom but la ñu yor temps yi di ko daal di séddale et heureusement avec aussi un entraîneur pour plus à présenter mais aussi qui les José Mourinho Mourinho gars il y gis des matchs match la et équipe est na Monza ñu leen dernier minute

avec l'Inter sixième clean sheet en neuf matchs pour Yann Le mais aussi ki a amené la moyenne de prise moi Dumfries Moi, it waa Milan de ci des profits profito jox contrat pour mu daal di koy khatim euh, ah, ko encore euh, ci 2028 lo dal la bëgg ak euh, Dumfries hein, mais aussi que dire gars de Boulay Boulaye Dia Boulay Dia de retour tey Boulay Dia nag mo permettre équipe am di tembo égaliser hein. dans les arrêts de jeu le double deuxième but bi donc dans les à la 95e minute de jeu Boulay Bouledja Dia qui revient en force moom mi nga xam nak dafa problème ak Serenitana par rapport à ko bañon mu dem donc il a marqué son troisième but aujourd'hui en championnat bu donc aujourd'hui dans le terrain tax plutôt équipe am tey de bañ a hein. mais aussi c'est un jour boo état de forme bi mu day tax aussi Sénégal dem ci am yakar ci Coupe d'Afrique bi ni daal di jëm mais aussi Nico Williams le frère de Iñaki Williams moom daal gars yi ni ne nii Milan daal na plutôt euh, ñii di Bilbao dans nañ koy woo dañ prolonger le contrat am est donc Nico Williams le euh, frère de Iñaki Williams qui que di Lionel Messi la Pulga mon nag fi mu MLS des tétiens ah MLS tëjee n'a day des a février 2024 dans le quatre daal la compétition mon nag est ce que xaar na ko xaaru bon ndax ban en tout cas dans moom daal fini février 2024 dans le quatre daal la dit Lionel Messi chaloba chaloba nga xam ne Bayern Munich ñoo ci top fini Liverpool aussi de Milan plutôt aussi ñom ñi ngi ci intéressé vous donc sur le joueur défenseur des Blues de Chelsea qui a donc euh, mais aussi qui euh, également donc qui euh, di Navas teeloon na mas daal gars yi fi mu ne nii moom daal euh, waa euh, Paris Saint-Germain dañ ko bëgg a jaay ñu ngi naan janvier bi daal euh, bu ñu gisee lu yemb daal dañ koy bàyyi mu dem le gardien costaricain nga xam ne daal man sama gis-gis a ma nag ñeneen ñi moo mën Donnarumma ci sama gis-gis ku nekk nag am nga gis-gisu gis leneen wala boog wax sa xalaatu bopp ah kon kii Keylor Navas nekk xam ne gars daal voilà yi nekk na doo ko dégg ci problème doo ko dégg ci coow et c'est un véritable professionnel ki nga xam ne daal moom Serge Rico moom nga xam dafa xam gaañu gaañu ba ñu dégluwoon ko ci comment moom nak ci match contre Milan bi ak PSG lañ ko fassé dal di sargal dina nek ci tribune yi 16 minutes daal di supporter dañ ko sargal mais gars yi que dire de Lamine Lamine Laftiat Camara extraordinaire stratosphérique phénoménal le but de l'année peut-être pour qui nga donc Lamine Lamine Laftiat Camara comme ni ko Bamba Dieng jëloon est-ce que Lamine Camara du jël en tout cas bi bi hein, xol len ko ci dig terrain bi lo tol dal di dóor un missile lobé gardien bi nga xam gardien bu AS Monaco Lamine Camara nga xamné il vient en forme au bon moment Mon premier but nak en match officiel avec ñi di FC Metz c'est c' ici ci coupe d' afrique bi ñu jëm Lamine Camara nak néna mom dafa yàgg sur Monaco gis né gardien bi dafa ëpp lu bari lu muy génn mo tax mu daal di koy tenté man nii bëgg ci joueur genre bi joueur kàngam moo koy tax on a besoin ci situation ci joueur yi mën di même si que dire de ce duo ils sont en train gars yi di def saison bu stratosphérique bu extraordinaire diggante ñi nga xam ne donc euh, ki di Krépin diata ak aussi Ismaël Jacobs les deux tauliers de l'AS Monaco aussi joué également dans son rôle de euh, piston donc euh, nek que le ramener dans le milieu leen di indil ay tuuti avantage yu bëri ki nga xam ne donc kii Crépin Diatta Crépigno am na club yu ko daal di euh, bëgg ki nga xam ne aussi nag mooy Ismail Jakobs moom nag fi mu ne nii daal gars yi ni muy wane boppam daal ñoom ñaar ñëpp waxuma leen club yu bëgg rek dem mais équipe nationale Sénégal daal ñoom ñu ngi wëy di wane seen bopp et on espère que ni njortees nañu ñoom dinañ ci am ab place bu rëy rëy rëy par rapport nga xam ne donc mooy situation mais aussi ki nga xam ne mooy nag donc ki di Marcus Thuram Gaye moom it comme j'ai dit également un joueur boo xam ne mi ngi en forme ñu waa Paris Saint-Germain ñoo ko bëggoon ak Manchester Inter, dem Inter en profite parce que c'est le nouveau euh, Lukaku hein, de l'Inter. gars information c'est toujours un plaisir hein, de vous servir woy de like woy leen di on avance ensemble dans la machine e-sportive de Baba Show Souba baaxee si yéen a